waa sama gars yi maa ngi leen di fàttali ne lii di économie gu dëkk bi téye nañ ko ci suñu loxo ñun manifestant yi banque yi téye nañ ko terre bi téye nañ ko transport bi téye nañ li nga xam ne mooy APS bi transport routier yi tamit danañ leen téye ba dara dutul dugg dara dutul génn lii nga xamante ñooñu interdit nañ leen ñun manifestant yi décrété nañ suñu couvre-feu képp koo xam ne da nga doon mane benn activité boo mën mënta bàyyi la nga doon def nga ñëw fekk si manifestant yi dañ la wax nga dem toogi sa kër benn banque mayeetuñ ko mu ubbi benn station mayetuñ ko mu ubbi ñi nga xam ne ñoo doon liggéey administration ñoom ñëpp interdit nañ leen pour que ñu dem seen barabu liggéeyukaay lii mooy li nga xam ne moom la gouvernement manifestant yi décrété que mayeetuñ kii que soit nga taxaw di am lenn looy def sunu couvre-feu mooy loolu benn activité moyetuñ kenn mënu ko def ci Dakar na ñëpp wàcc manifestant yi ñu jàmmarloog Macky Sall amul lenn loo xamante ne si bii képp koo xamante ne si bii yaa ngi jéem a xët sunu règlement yi nga xam ne teg nañ ko pour maintenir sunu manifestation lépp lu la ci dal na nga xam ne yaa ko teg sa bopp Macky Sall dictature la installé Sénégal te loolu kenn du ko nangu bu ñu demee ba njiitam réew moo xam ne doomam tey dañoo waroon wax kañ la war a commencé dal jàng mu bàyyi ko muy recruter ay nervi di leen jox ay fetal ñuy dal ci kaw askan wi dama wax ne réew moom mu tàkk na ba pare Sénégal tàkk na ba pare Macky Sall taal na ko heureusement ñi nga xam ne ñoo ko waroon a wax mu génn ci li mu nekk ñoom ñoo ne ko gëmmal dóor kon dèjà réew mi mu gën a xam booti doomam waaye ñun ñi nga xam ne ñooy manifestant yi décrété nañ sunu couvre-feu mayetuñ benn activité kenn di ko def Dakar lu dul wàcc ci terrain bi ñu jàmmarloog Macky Sall te sama gars yi na ngeen xam ne Macky Sall américains yi wax nañoo ak moom dànkaafu nañ ko français yi dànkaafu nañ ko européens yi ñëpp a ngi koy dànkaafu actuellement nii mais dafa am beneen dànkaafu bu gën a garaaw nag boobu muy waa banque mondiale ak waa FMI parce que ñoom nag seen alal duñ ko dugal ci koy caaxaan ak di fo duñ ko dugal ci koo xam ne mën naa xëy def loo xam ne seen alal day day tàkk ba jeex tàkk te ñooñu seen réaction mi ngi feeñee ci bu ñu maintenir li nga xam ne mooy économie gu dëkk biñ téye parce que bu ñu demee ba lenn loo xam ne luy dugal xaalis di ko génnee doxatul ci Dakaaru loolu léegi ñoom ñu yëlbu te ñoom bu ñu yëlboo ci kaw Macky Sall Macky Sall amatul pexe parce que ñaawtee fii mu def di jël xaalis di joxe lépp ci situation yi yi yi nga xam ne moom la waroon a jël pour askan wi moom lay jël di ko dugal ci yooyu kon bu ñu fexee ba ñooñu bu ñu yëlboo ci kawam rek léegi tey buntu feeñ kon boo gisee may insister ci audio yi ni mu bëree ci wàllu économique bi dama leen a bëgg xamal ne loolu dafa am solo ci combat bi nañ ko gën a maintenir ba ñooñu yëlbu ñooñu buñ yëlboo léegi tey Macky Sall dellu gi naaw ci ndeyu ñaaw def yi mu nekkee. damaa yaakaar ne woon da ngeen ci jël exemple fii fii ak yéen a ngi jël ay pono di ko dajale ci koñ bi naan Kër masaar commencé nañ Malika commencé nañ Tëngéej commencé nañ dajale ñetti pono taal. su ngeen ko def bu ngeen ko defee Ousmane Sonko ca kaso ba lay dee Ousmane Sonko ca kaso ba lay dee su ngeen day dajale ay pono di ko taal fee commencé na fee commencé na ñu tàkk ñaari minute fay ca kaso ba la Ousmane Sonko di dee yéen xool leen France ku ci bokk ku ci bokkul gis nga képp ku génn tege ci kaw tali bi bëtt leen nday otoom sànni cocktail molotov ci kaw oto yi ko cocktail molotov ci kaw police yi loolu doo ngay jeexal xeex bi boole ki général marché bu mu am transport bu mu am bu kenn lekk bu kenn naan boleke leen VDN bi boleke be den bi boleke autoroute à péage bi sorti yëpp ngeen tëj ko Malika poste Thiaroye Tëngéej parcelle fépp na boleke wallahi bu nit ñi xëyee dem marché togg añ lekk Ousmane Sonko Kédougou la jëm te wallaahi bu fekke fekkee ni nit ñaa ngi dox seeni soxla oto bu jàll ngeen may ko mu jàll bëtt leen ay oto yi wut leen ay weñ dagg weñ yi ay barre de fer ngeen di wut dagg ko bëtt nday oto yëpp ci kaw tali bi sànni ci mala molotov mu jàll la xeex bi képp koo xam ne romb na leen oto di leen war ne sama yoon nekku ci moom ngeen di njëkk a attaqué doo ko dem te Macky Sall wallaahi bu fekkee seetaan nañu Ousmane Sonko ko la élection waaye deux mille vingt quatre ba deux mille vingt neuf te kasa ba koy fekk buñ ko rayul kee dugg lañ ko jëmee yéen dong yéen a ko mën a génnee feeg yéen a ko dajale ñetti pono di ko taal ñeenti pono di ko taal nan Kër Masaar commencé nañ Malika commencé nañ euh, Tëngéej commencé nañ parcelle a ngi nii wallahi Ousmane Sonko di ci mas a génn tali bi oto yi ngeen di def baaraas oto yi personnel yi particulier yi jàll mooy seeni baaraas moom ngeen di bëtt nday pono yi taal ko ci kaw tali bi yéen mënu leen a exemple ci France ñetti fan lañ ko xeex xeex bi jeex.